actualité bi aussi moo nekk li xew ci sous-région bi moy débat troisième mandat bi gis nañ Côte d'Ivoire ki nga xamanteni moy mooy Alassane Dramane Ouattara investir nañ ko candidat euh, ci Guinée ki nga xamanteni mom mo nek Condé mom tamit déposé na candidature am gis nga Mali li fa xewal mu melni Afrique problème leadership wala question de troisième mandat mom daf leen sonnal lool. wa xam nga lool dama bu xam lan mu andi coow hmm. ndax ñak déggo ba ñuy constitution bi la wala bañu ñu constitution bi paré naka lañ ko kenn ku di man Ablaye Matar sa collègue Pape Alé def constitution 2016 fii la ñëw toog man Matar contre limitation des mandats d'un président de la République en Afrique ah bon man Jean-Paul Diaz ci responsable politique yi ma xam mhm. am carrière ñoo ko commencé à opposé

amul limitation mandat ñom dañuy rétane Allemagne amul limitation mandat Merkel a ngi ci 4e mandat États-Unis d'Amérique amul limitation de mandat c'est pas écrit il y a un président américain qui a fait plus de 4 3 mandats sur deux mandats successifs bañ ko waxe dafa ne guerre bee tax. lima lay wax dama lay wax. Mhm. non xam nga dama lay wax daanaka biñu ñuy né mhm. dama lay bugg a mhm. mbir mo xamné dang ci nga ciy teg sa loxo. man lu wax lu né dama bëgg. borom xel yi. gëstu ko parce que man bañu ma ku ma weddi xam na laay bañ ku ma yey wax naa la États-Unis seen constitution amu ci am na benn président États-Unis def na troisième mandat bañ ko nee nekkul ci dafa ne guerre bee tax damay présenté maa mën a ko conduire dëkk bi pour nga wax ko Sénégal yi xamul loolu wax naa ne France amul troisième mandat Allemagne amul troisième mandat Russie amul troisième mandat amul limitation des mandats kon léegi boo xam nga fa laa bëggoon jëm leneen rek laay ñaan sénégalais yi at mu jot wala at mu ñu dëgmale élection ñu saaga magistrat yi saaga conseil constitutionnel xas leen bii su fekkee ne constitution bi leerul ci nit ñi te commission politique ñu ngi lay ci fichier bi dama bëgg ñun ñëpp ñu daje d'accord ñu def benn référendum laaj sénégalais yi ndax d'accord nañ ci ñuy limiter mandat ou pas bu ñu paree door dem door dem élection incha allah mu yéex. su ko defee amul amul conseil constitutionnel amul leneen nañu wax nañu bindaat ne sénégalais est-ce que vous êtes d'accord pour la pour la limitation des mandats ñu ne oui est-ce que vous n'êtes pas d'accord ñu ne ñu dem référendum dootul am dootul am. yaa évoqué yenn réew yu ci mel ni France euh, c'est état de démocratie yaakaar nga ak Afrique benn la surtout Afrique nga xam ne nit ñi dañuy mooy si nguur gi ba nga xamante yenn aadi dañ koy am mais duñu bëgg a mais France ban état de démocratie xam nga yéen tuuti ngeen wax naan naka lañ koy wax naan.

bu amee Sénégal ku nekk wax naan yu démocratie Macky moo fal député dama ne député français LRM. Macron moo defar liste bi est-ce que dafa yàq démocratie bi. ñu wax report des élections France reporté nañ seen élection municipale. waxuma bi yoon de et pour ne même temps euh, François Hollande reporté nañu élection municipale. donc gis nga démocratie mooy démocratie. xam nga li ci am solo. mooy ki jiitu bañ a def lu ko neex na waxtaan ak ba ñu d'accord ci dara. bu ñu d'accord ci dara mais mais léegi yéen a ngi wax. Li commission politique bi de réunion ban état démocratique boo leen waxee dafa war dina ko nangu est-ce que yow xel mun a nangu France président de la République bien benn commission mu réunion defar ne damay modifier code électoral ñu yóbbu ko assemblée ñu voté ko sans changer ko ñoo xam ne faluñu la ñu liggéey ci commission politique bi kan lañ ci élire élire ñu ci kenn bi parti là-bas, opposition laa bokk ñu dajale leen woo société civile société civile ñi fa nekk ku leen fal kenn. ngeen dajaloo ni nii la bind ci code électoral le maire est élu suffrage universel son nature xaw ma naa ne bind ah ngeen jël ko Macky Sall d'accord ngeen yóbbu ko assemblée nationale donc la commission qui a rédigé le projet de loi xëy na sa xel rek. d'accord kon kon kon kon honorable Sénégal yow jàpp nga lu ñuy ruumandaat ci suuf troisième mandat beeg yooyu yow yow noo ko gisee yow. noo ko non non loolu egguma ci parce que man waxuma waxu Macky Sall. Mm. Idriss Seck xam nga est ce que wax na nag candidat am du candidat. dégg kuñ ko ak dégguloo kenn ku ne candidat la pourquoi ngeen bëgg a dégg Macky ne candidat la. Ah, Sonko moom mu leeral la côté nee na moom 2024 dina dem. ma ne dina dem ma ne ma hmm. ne lii ma la wax daal nañ dem référendum ñu bàyyi magistrat yi tranquillement

gisuloo événement fii amoon fii da ko jaroon xool ñi ci dee pertuñ ñi tëjoon kaso pertuñ kon yow 1988 lu fi amoon Abdoulaye Wade ak euh, Abdou Diouf rey nit ñi taal dëkk bi tëj nit ñi kaso ñu xëy suba 1991 lu national gouvernement d'union nationale ab euh, xamoon naka majorité présidentielle éradiquée Abdoulaye Wade jubloog ma ab euh, Abdou Diouf ñu defar seen gouvernement joxe seen président conseil d'administration ñu ngi ci kaso bi ñu dee nañu da ko ko jar kon bokok ñuy wax né euh, troisième mandat mom ku ko fi wax nañ la yóbbu rëbës tëj la parce que coup d'état constitutionnel. waaye dama né yamal ci lima la wax dama né la buñu ñu élection. Hmm. yu jëm ci jamm parce que kenn ku nekk yaa ngi waxee du mu la neexee. Hmm. gisuloo gars yoo xam ne commencé nañu tuumaal conseil constitutionnel le conseil constitutionnel jox na position ba pare du liir nga ko. Hmm. ñooñu toñu ñu waa conseil constitutionnel. loolu ngay seet yow 2024 inshallah allah eggaguñ ci nga commencé fi ñu nekk fu ñu nekk 2020. 21 22 23 incha allah ba 2024 kenn du liggéey kenn du tal dara li nga doonoo sànq politique suba politique ngoon kenn toppatool ndax ñu ñaa ngi añ kenn toppatool ndax ñu ngi reer euh, euh, ñu bàyyi ñu liggéey réew mi bu ñu liggéey daal man li nga xam ne moom laa xam ci élection yi mm. li am Côte d'Ivoire bañ a am feneen li mm. ak xeneen li nga wax nañu dem référendum loolu da nga ko def en gros titre nga nekk sëriñ Dakaaru nee na mm. nañu dem référendum teg constitution bi fële benn ndax d' accord ngeen amatul limitation wala d' accordu leen bu Sénégal ne oui limitation mu yem fii buñ nekk mu ne nga continuer ñu woote mu jeex.